tey jii ci samedi ji dëppoo juróom-benn fan ci weeru safar atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn kii di Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Sëriñ Abdou Khadir amaloon na ab tukkib nemmeeku ci université bi nga xam ne ñu ngi koy tabax ci dëkk ba sell bii di Touba bi Sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadir akse amal na ab nemmeeku mboolem bâtiment yi nga xam ne ñu ngi koy tabax ci université bi ba mu ca noppee it amal na ab jataay ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi denk liggéey bi ñooñu it ka yoroon seen kàddu xamal na sëriñ bi fi liggéey bi toll ak entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo séq bi liggéey. ñeent ñeenti entreprise wala ñeenti entrepreneur ñu ngi liggéey juróom-ñeenti bâtiment ci wàllu euh, kulliya islamique bi maanaam université islamique bi ak majalis bi ak euh, administration rectorat bi ak bibliothèque bi euh, sëñ Cheikh Abdou Hakim moom it mu ngi fi mooy liggéey jàkka ji ak centre de santé bi talia bi di mbooloom murit yooyu nga xam ne ñoo dajaloo di liggéey daara alxuraan ji ñoom it ñu ngi fi tàmbali nañu ñeenti bâtiment tubaa ca kanam itam ñu ngi ci majalis bi ñu ngi fi def benn bâtiment kon daanaka loolu boo ko boolee war am mat fanweeri bâtiment man fanweeri bâtiment yoo xam ne mooy nekk phase bu njëkk bi te loolu dañ ko bëgg a def ci ñaari at incha allahu rabbi nga xam ne bu ko yàlla dogalee bu loolu antoo euh, des nañu des na man a daloo université bu ko defee nag mu des euh, mu des euh, université wàllu agronomie bi ak wàllu métier yi ak leneen li des ci ci université islamique bi nga xam ne kon lépp war naa toll ci juróom-benn fukki bâtiment wala boo ci boolee restaurant yeeg yëpp daal kon sëñ bi ci tënk loolu mooy mooy liggéey bi fi ñu ci toll. Serigne Cheikh Bassirou Mbacké rafetlu kàddu yi ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi denk liggéey bi waaye it ñaax leen ci ñu gën a dolli seen pasteef ci liggéey bii lu ñu xamal ne sumb bi ab naan la boo xam ne sëriñ bi moo ko naaloon ci dëkkam bu sell bi te Serigne Mountakha lenn du yéeneem lu dut fexe ba naali sëriñ bu mag bi nii mu def ci lu kawe njort. ci turu Serigne bi rek ginnaaw bu ñu fi agsee ñëw fi ak mbégte mu rëy ndax liñ fi fekk. mooy loo xam ne kawe na suñ jort ndax euh, kenn mënutoon xalaat ne ci diir bu gàtt bi liggéey bi dina agsi fii ndax motagul at te gis ngeen bâtiment yi ni mu yëkkati ko fi mu àgg kon loolu dañ ci sant bu baax a baax ànd ci mbégteem rëy ndax sëriñ bi liggéey bi da ko itteel te ñor ko moo wax ma ci ay kàddu ci ci wét wax ma ci ay kàddu ci biti kon loolu euh, ndegam moo fi desoon ci naari sëriñ Tuubaa yi nag kon day mel ni yitte jëpp dañ ko war a jël jëmale ko ci kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàmbalee cant gi rek ci euh, waa Touba Masoro gi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Ka moo ko jiite ndax liggéey bi jaar naa xool naa bâtiment yëpp waaye lépp liggéey bi dëppoo naag ni ñu ko séntoon wala mu ëpp ko kon moom itam ngi koy sant bu baax ci turu yaakaar ak moo bi dénk ko. waaye nag ni ñu ko séntu woon àgg na fa di gërëm itam waa Touba ci kanam ñoom ñi nga xam ne ñoom itam dem naa ci seen bâtiment ba biñ leen ko joxe léegi yàggut waaye seen jiite ak seen positif ndax ñoom itam jël nañ benn bâtiment ci majaalis bi du ko tabax kon ñoom itam ñii leen di sant ci seen positif ak seen taxawaay ci niñ koy defee ci mboolem liggéeyu Serigne Touba bépp di leen ñaanal bu baax li nga xam ne yéene nañ ko jëfal Serigne Touba ci dëkk bi ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na euh, suñu borom kàttanal leen ba lépp ñu àggale ko di gërëm itam kuréel bi nga xam ne ñoom itam euh, yàlla dafa def suñ borom dimbale leen defal leen xéewal ñu koy dellowaat yàlla suñu borom di ko sant Serigne Touba ndax i'malu aala Daawuda shukran ak jëf ak cant diis ko wax ci lam waaye cant diis ko jëf kon ñoo itam bu leen yàlla defe defalee tawféex defal leen wërsëg ñu delloo ko ci yàlla delloo ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa ñoom itam gis nañ liggéey bu fa mu toll dal na xel bu baax ñu ngi leen di gërëm ñoom itam di leen sant di ñaan ñoom itam ni ñu fas yéene ànd ak sëñ bi ci liggéey bi yàlla na suñu borom dimbali leen ba lépp mu àgg li ñuy wax taqdiimul mutaaxir rek moo dal mooy Serigne Cheikh Bakkim Serigne Bakkim moom itam. dem naa dem ngeen ci bâtiment ba wër nañ ko dem nañ ci jàkk ja dem ci centre de santé ba moo tax ñu koy sant bu di ko gërëm wax naa ko léegi ne ko dangay am am tawféex ndax tawféex ji mooy Serigne Abdoul Hakim ku ko xamoon xamoon diggam Cheikh Mouhamadou Mountakha wóor na ma ne bu fi kilifaam nekkoon di Cheikh Abdoul Hakim dana taxaw ci ginnaaw suñu Mountakha taxawaay bu toll nii waaye nag moom itam yàlla def na tawféex ci moom ndax tawféex ji mooy mbirum Serigne Touba ci pëstéefa lay rawante yàlla defal ko tafeex te xam naa ko bu baax ndax ñoo bokk noonu ne ci kër suñu ci daara ji waaye wenn melokaan wi laa ma saxam ci kon mooy itam pëstéefam ak jomam ak yitteem ak xam na waajuram doonoon bëgg-bëgg mu gàttalu ko ci ñu ngi koy sant moo bokk taalibe yi topp ci ginnaawam am ak moom di ñaanal ñëpp daal liggéey bi daal ni ñu ko tàmbalee nii te rafet njortu ci ne balaa déwén danay fekk ay nit di fi jànge yàlla ko suñu borom mottali te dal nañ ci xaritam ndax li fi gis xam naa bu ñu doxaatee ay weer dana ci ab bâtiment yu nopp yu ñu mën a di gërëm bi nag ñi nga xam ne ca tàmbali liggéey ba muy ceewu euh, kanji architecte <coughs> ñoo ci ak ñaŋ Niang ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci liggéey bi euh, di ko taxaw ànd ko commission technique bi nga xam ne Serigne Mame Thierno moo leen fi teg ndax am na ay ingénieur lu ma ñett lu bokkut ak bureau contrôle bi koy taxaw ay techniciens yoo xam ne man na ñett wala ñeent moom itam ñoo xam ne dañoo sax ci barab bi ñu bokk ñu ànd ak ñi fi bàyyi euh, ànd ak architecte bi nga xam ne mooy saytu liggéey bi di xool ba xam ndax lem rëddoon xalaat ko mel na te ñoom ñoo seeral seen bopp lu ci ne ci liggéey bi norme yi leen waxoon matal nañ ko kon nag ñu ngi sant ñëpp ku ma fàtte nag euh, nga xam ne rek li am solo mooy di jëf ngir yàlla jëm suñu Tuubaa ndax wakafa bi wakafe billahi shahidan sëriñ Tuubaa nag Cheikh Abdoulaye Mbacke ne jis bi dafa neex lu waay jëf ngir moom rek xam na ko kon nag somb yi moom day day day day day bokk ci li nga xam ne rek moom la alxuraan di wax ne inna al abraara yashrabuun min kashin kaana misaajuha kaafuuran aynan yasabu biha ibaadullahi yufajjirunaha tafjiran yuufuuna bi nasri Cheikh Abdoul Ahad ba muy somb simb yàgg na ku fi dugg xam ne xol ba réew na Cheikh Mahamadou Mountakha bi mu agsee yóofoo na bi nasri ji mooy xam ne lii ba ay téeméeri at dañ koy jëriñoo noonu la kilifa war a def yóofoo na bi nasri wa yaxaafoon yawman kaana sharruhu mustattiran wa yut'imuuna ta'aama ahlahu bihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran innamaa nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wa laa shukuuran kon loolu rek mooy da ci am solo di jëf ngir yàlla di seere yàlla di jëf ngir Sëriñ Tuubaa te xam ne Sëriñ Tuubaa kat képp ku koy jëfal ku ne waxoon na ne lu mu waay defal waxoon na ko sëñ Masamba Jóob Sàmb ne ko dana ko Masamba mbaa xam nga ak Daam la Daam mooy dencukaay mu kon de Mbàkke ñu fas yéene doone lantinoor lantinoor mooy lu accès jàll ci sëñ bi mu ne ko loolu képp koo xam ne def ko danaa la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa am amuk diw ne la ma dénkoon la ngi kon nañ xam ne li jëfal Sëriñ Tuubaa luñ luñ koy dénk rek la dénk gi nag ñun noppi nañ ci la pay gi nag ci loxoom la kon nag ñu soññi taalibe bi yëpp ni ko sëriñ bi santaane ci bi ñu woote màggal gi ni ñu tàmbale woon liggéey bi mi ngi ci soññaa taalibe bi Sëriñ lu ci waay jëfoon ren na ko fàtte te gëm ne ci déwén ci la sa aju du faju li fii liggéey bi àggut bañ jébbal ko sëñ bi ba sëñ bi santaane waat leneen nañ xam ne ab taalibe bi du noppalu ndax taalibe suñ tubaab yi suñ borom defal na li gën a jafe defal na wërsëg ndax suñ biyoon ko faggul tax moo waxoon ne ahaddani jannaati addnin tajri min taxtiha al anhaaru mahel hijri moo leen ko faggul wëlbati rek jox leen xol yoo xam ne eh, seen xol yi day tàlle ndax xam ngeen ne alal dafa taq ci xolu borom moo tax alxuraan di wax ne wala yasalkumu amwaalakum in yasalkumuha fa yufikum tabxalu wa yuxrij adxanakum waaye Serigne Touba ak ay taalibeem suñu boobu musal leen ci loolu seen xol dafa nangoo joxe li ñu nangoo nangoo joxe it ñu ëppoo ñëpp kon nañ xam ne joxe du tax ñàkk ndax suñu borom moo wax ne eh, lépp loo jëf ngir man rek naa fa wutal lu ko ëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan eh, kon suñu borom moo wax ci alxuraan ne lépp lu ngay jëf ngir man danaa fa lu ko ëpp. kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tëji cant gi nag ci ki nga xam ne liggéey bii bi mu tàmbali moom moo fi njëkk ci mujj Cheikh Sidi Moussa def fi ñaari bâtiment di Serigne Amdi Khady Fall bi Cheikh mu Mountakha nekkee Serigne Touba moom la fi njëkk santu liggéey mooy miir bii ñu defaraat ak barab bi ñu nekk nga xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacké ak ñaari rakkam ya fi lañ dale al fi lañ fi fii fi jànge muy bar bi ñu toog muy sëriñ am di xadi mu liggéey ko ba liggéey ba daanaka àgg na sëriñ bi nga koy sant bu baax di ko gërëm ci yitteem ak positif ma taxawaayam ndax mënoon naa doyloo kat taxawaayu maamam ja maam Cheikh Ibra Fall waaye doyloo ko dafa laxasaayu rek ngir fas yéene rek mu wóor ko ne la maamam da daa jëfal Sëriñ Tuubaa mu fas yéene jéem a jëfe noonu moo tax ku gis ni muy jëfe yéen i jaag pëstéef da ciy feeñ kon sëriñ bi nga koy sant bu baax di ko gërëm Cheikh Mouhamadou Mountakha da koy seeral waxtu ne ne moom de lu ko nit di ëppee tuyaaba xamu ko ndax jëf moom kenn mënu ko ci man kon nag dañ koy ñaan bu baax mu yàgg fi te ànd ak wér te njabootam gi topp ci ginnaaw mu tàggat leen ci loolu di taalibe yi ak njaboot bi nga xam ne seen di yi jëpp liggéey Tuubaa soxla wu kër ñu oto soxlawuñu dara seen jiite jëpp ñu ngi ko jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa kon nag ku mel noonu euh, ñëpp ko war di ñaan yàlla bàyyi ko fi gën ko kàttan may ko gër ba li muy liggéey Sëriñ Tuubaa mu gën yàgg lool ci barke Sëriñ Tuubaa